dal leen ak jàmm ci info 221 seen bi leen di jox xibaar yu wér te wóor abonné leen ngir dara bañ leen raw kenn dootu ko laajte jàpp leen delloo ma samay 18 ans mooy seen aphrodisiaque bi nga xamante ni moo gaaw efficace pour seen traitement ñi nga xamante ni dañoo am impuissance sexuelle éjaculation précoce maanaam daal lépp luy jàngoro jëm si wàllu kër gi delloo ma samay 18 ans du ca morom ndax secret yéen ko mooñaale lépp doon ay plante naturelle bàyyi ko suñuy gàncax waaye tamit ñu mooñaale ko ak ay tur yàlla macha allah delloo ma samay 18 ans traitement efficace la benn yoon nga koy jël ba faw nga raw waaw waaw delloo ma samay 18 ans moo lay gunge dama ni looy gën a jëm mag di gën a dellu ans. kenn dong moo ko fi am bu ngeen ko bëggee gaaw leen ko gaaw woow moom mooy spécialiste bi di Serigne Mohamed Sylla la ñu àddu rek wax ci xibaar yi njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye moom nag dafa xëy di wutali woon nag fa nga xamante ne moo di jam ñaaju waaye nag ci yoon bi la daal di gis nag ab accident mu mel ne rek oto bu këpp ci autoroute bi njiitu réew mi nag mu wàcc oto bi mu yéegoon fas yéene rek saytu bile accident nga xam ne jot naam bu bu sooxee loolee rek nag ci la daan arrive attaque taxawal li nga xam ne rek mooy convent bi ngir mun a xool nag situation bi luy wone rek ne ba tey jii lii di accident yi nag dafay gën di bari fii ci Sénégal ñu wax nag ci leneen maître Ngagne Demba Touré daal dina xam ne ne li conseil constitutionnel rek daal di waxal xam ne Bassirou Diomaye Faye jamono jooje nag ñu leen di xamal ni ki nga xamante ne rek moo di Guy Marius moom mi ngi ñaawlu nag yenn ci policiers yi nga xamante ne wàllum def ci tali bi maanaam dañu leen di fay xaalis moo tax seen liggéey nuñ ko defee nuñ ko war a defee duñ ko defee noonu mu doon nag première prise bu am solo boo xamante ni def nañ ko ngir xeex jële fi wàllum ger fii ci Sénégal bokk na ci benn policier boo xamante ni Guy Marius Sagna mi ngi ñaawlu anam bi nga xamante ni noonu la defee woon ndax si benn action boo xamante ni mi ngi ko doon nag rafetlu ci euh, Elmon service de Jean Baptiste Tine ñun leen rek na ministre de l'intérieur dafa ne nag képp kuy policier nekk si yoon bi jamono ji dootuñ la bàyyeti nag ngay nekk ñu lay ger ñu lay fay xaalis ba ni nga war a contrôler di ko def moom député bi mi ngi jaajëfal nag assemblée nationale ba tey jot na signalé acte boobee ci kanam mu pencu ndaw réew mi police mooy sax nag daal dinañu ubbi enquête ngir mën a xam kan la exactement ba noppi fas yéene appliqué sanction yi nga xamante ne njiitu réew mi wala sax nag jëwriñ bi daal dina koo jël mu doon loo xamante ni faral nañ ko gis benn taximan boo xamante ni da doon jox xaalis benn agent de police bu nekk ci circulation bi ca booru pont émergence maanaam wetu pont émergence bu nekk fii ci côté Patte d'Oie loole nag gi Marius Sagna gis na ko fas yéene ko dénoncé ñu wutale ca gàmmu Tiwaawan ak lii ci àddi lu toll si juróomi téeméer ak fanweer ak juróom-ñett élément ak lu toll ci juróom-ñett fukk ak juróom-ñett woto yoo xam ne sapeur pompier moom la ñu fas yéene déplacé ci dëkk yi nga xamante ni euh, fi bërëb nit ñi di tase fu mel ne Tiwaawoon Kaolack ak yeneen ñu nu mel biir carte nationale bu ngànk sapeur pompier moom nag ji ñu ngi def nag seen séddale ci wàllum pàcc ci wàllum jàppale diggante Tiwaawoon Kaolack Thiénaba ak yeneen këru diine yi nga xamante ne rek ñoom dinañ ko amal ngir sàmm waaye tamit gën a aar kaaraange askan bi wàllum xibaar bokk na rek nag ci sàkku ceef bi nga xamante ni euh, ginnaaw kàddu yi nga xamante ne Cheikh Omar Diagne yëkkati na ko teg ko ci bindoo di Serigne Touba ak i mbindam ñoom nag murit yi fas yi woon amal na seen manifestation bu njëkk ni ki ajuma jën weesu tey ji rek dañ bëgg amaatoon beneen ki nga xamante ne mooy Serigne Modou Bousso Dieng ak ñiñam nag mars boobee ñu dul sàkku bi daf lañ ko tere ne ko fi amal manifestation sax ñu ngi doon xaar bu ñu julee nag juma ba noppi fii ci Masalikul Jinan comme niñ ko amalee woon bale passé waaye nag ki nga xamante ne mooy action yi ci wetu préfet bi dafa lank ne du leen jox autorisation ndax dafa jàpp yéen lu ñu mel mun na indi trouble à l'ordre public dem beeg dikk bi bu soofee ak leneen loo xamante ne rek mën na ci àddu ak ki nga xamante ne rek euh, moom Modou euh, Mbacké ki nga xam ne mooy Modou Mbacké euh, Bara Dolly ak ñoñam ñoom nag dañ bëggoon amaat beneen ñaari manifestation boo xamante ni dañuy ñaawlu kàddu yi nga xamante ne ministre conseil bi di Cheikh Omar Diagne yëkkati na ko jëmale ko ci kilifa diine yi nga xam ne ñoo fi nii ku mel ni Serigne Touba ak El Hadji Malick Sy sax nag doon lu njëkk ci juróom benn fan ci weeru septembre bañ ko amalee ñu jàpp rek ne dañ leen waroon a bàyyi yi ndax ñu fësalaat ndaxte kii lu mu wax bëgg nañ ñu manifester ba noppi waaye tamit xamal nguur gi ne ñu jëlee ko eh, ci bopp fi nga xamante ne far nañ ko Ousmane Sonko di Elimane Diori ñi ñu koy xaarandi ni ki tey eh, ca Ziguinchor moom Elimane Diori ñi ni ki nag 26 septembre ngeen baal ma bëccëg boobee dafay tombé sax ñuy daal di màggal ñaar fukk ak ñaareelu édition bateau Joola bi suuxoon eh, Ousmane Sonko nag dina fa teew moom mi ak préfet bu Ziguinchor moom mooy jiite cérémonie boobee nga xamante ne dañuy fàttaliwaat ji bi xam ne amoon na fi mu doon lu kenn dul fàtte buñ sukkandikoo ci El Hadji Tanor Gning mooy directeur cabinet bu ministère de la jeunesse ak lu jëm ci wàllum sport ak culture jot na firnde rek ne dëggalaat ne teewaayu Ousmane Sonko dina am solo lool ci bëccëg bi nga xamante ne dañuy fàttaliku ñaar fukki at ak ñaar lii di batalu Joola ñu wax nag ci coupure courant bi nga xamante ne daal dina am ni ki démb fii ci Ndakaaru jural coow nag jafe-jafe waaye tamit ñu bari ñi nga xamante ne dañuy jëfandikoo seen liggéey xaw naa yàqu loolee tax nag ñenn ci animateur yi commune di jeex xëcha jot na àdduna na panne bi ñëw ci alxames bi démb indi na Sénégal ci lëndëm bu kenn dul fàtteeti waaye tamit bari na ci appliqué yoo xamante ne jot nañ ci yàqu moom nag animateur bi nekk ci 2 yi nee na xaaree woon fi jot na rek nag ñu jël matuwaay yoo xamante ne nag lu nu mel bañ fee amaat ndaxte nag courant mënta ñàkk ci dëkk jamono ji nga xamante ne nag technologie dafa fës nit ñi dañu koy soxla saa su nekk courant bi nag mi ngi amee fale ca taxaw poste bu ànd na ginnaaw jafe-jafe yi nga xam ne jot na fa am loolee laaloon benn pàcc ci ndakaaru waaye ñu ci yëpp nag amuñu woon courant waraloon nag ñii di jaaykat yi ñi nga xam ne dañuy def glace ñoom ñëpp yàqule waaye tamit ñi nga xam ne ay animateur rajo yeeg télé yëpp daanaka lu bëri da caa fay mënuñu woon sax dégg mu doon loo xamante ni moom di jee xëca mi ngi koy ñaawlu di rek ne lu ñu mel nag buñ ko amat yi ndax nag Senelec war nañu am taxawaay boo xamante ni coupure bu amee daa fa war a am waxtu yoo xamante rek dafa war a dikkat ndax askan wi gën a mën a wëyal seen i liggéey. beneen xibaax daal dina fës di ab vidéo boo xamante ni daal dina doy waax wone rek nag geste bu rafet bi nga xamante ni njiitu réew mi Bassirou Diomaye fay daal dina ko def ci autoroute bi situation exceptionnelle boo xamante ni dafa impliqué njiitu réew mi Bassirou Diomaye fay lu yàggul dara jamono ji nga xamante ni mi ngi jóge woon Thiès euh, wuti mi ngi doon wutali fa nga xamante ne moo di jam ñaajo ngir rek événement officiel bi nga xamante ne ñu ko fas yéene amal di satellite bu njëkk bi nga xamante ne def nañ ko sànni euh, Sénégal fësal nañ ko njiitu réew mi Bassirou Diomaye fay doon dem ngir mën a teewee euh, boobe nag nag cortège bi ci la ñu romb ci autoroute bi gis nag benn camion oto boo xam ne dafa këpp ci péage bi mu doon situation bu doy waar ba tax jiitu réew mi daal di wàcc ngir rek mën a xool situation bu nu mel naka noonu tamit wàcc na dox ay tànkam ba fi nga xamante ne fala mbir mi daal di amee mu xool saytu conséquences yi nga xam ne rek accident yi am nañ ko ci yoon bi mu doon geste boo xamante ne tamit ñu bëri jot nañ ko daal di gis ci réseaux sociaux yi jaarale ko ci askan wi loole sax nag bu baax jàpp ne lii ne rek xëy na dina mën a yee ñi nga xamante ne ñooy dawalkat yi ñu bàyyi seen xel bu baax a baax ci lépp li nga xamante mooy am ci yoon bi. du baale bu fekkente ni da dem bay waaj mën a too wala sax ngay nemmeeku ni tamit yaa ngi am temporairement ay jafe-jafe si wàllu sëy du baale mooy régler la situation si saa si nga am la nga bëgg ngeen ko dégg du de situation bi moom moo ci gën a gaaw gaawal gaaw mbokk yi bala stock bi di jeex yi les produits ñu leen proposé seet na sell na teg nañ ko ci xam-xam gëstu nañ ko amul lenn effet secondaire da ngay naan di yëg sa bopp boole kook sax na di gën a am tawfeex si yeneen jàngoro yoo xamante ni moo ngi sa yaxam kenn dong moo ko fi am bu ngeen ko bëggee gaaw leen ko gaaw woo moom mooy spécialiste di Serigne Mohamed Sylla 77 la